une pensée très très profonde à euh, notre frère patriote euh, Papito Kara bi nga de ne dañu wax ne dafa tëj ci Espagne bi mu nekk une nouvelle boo xam ne c'est vraiment très très métti Nous mastawu encore une fois sa famille di leen ko jaal di ñaan suñu borom yërëm ko xaare ko aljana di euh, wax ne it Papito Kara ak dayo bi mu amoon ci réew mi bu demee ba ci circonstances yi ça démontre encore et encore ce pays va mal parce que maintenant maintenant daal métti na ndaw comme des mouches des dee ci bi ñi di jël Nicaragua bi sedd bi di c'est incroyable et que on ne veut pas mettre tout sur le dos de l'État parce que nit ku dem ba ses responsabilités et tu sais les risques tu connais les risques madame. mais quand on y pense et quand on creuse au fond on va voir que les lépp dañ ko tactique a teg ci ci que ces jeunes euh, entreprennent des voyages clandestins. Et c'est une tragédie vraiment déchirante. Parce que vous faites quand tous les moyens étaient là pour voyager gagner en tant que jeune qui a d'ailleurs soit 3 millions 500 000 2 millions vous pouvez régler en tant que jeune des papiers yi nga xam ne si ñoom ñoo lay ci légal bu légal mais tubaab vas ak étranger yi mën a dugg suñu réew nu mu leen alors que nous on ne peut pas sortir de ce pays da ngay dem galérer avec des papiers des protocoles tu dois payer tu payes ça tu payes ça dem à la dernière minute on te dit ton visa nous refusons leur ce visa donc moo tax les jeunes yi li ñuy dem aéroport ma nga aéroport pour dem Nicaragua à aéroport bi AIB aéroport bari ngi fees dell pour dem Espagne

dem ba dem c'est lié à la suite de de de de situation dangereuse parce que fii boo fi proclamé on est patriote nga wala bëgg nga Ousmane Sonko wala da ngay wax deug rek tu es en danger tu tu mën na la à tout moment. tout jeune nag boo xamné ne conscient nga xam lolu tu préfères aller faire euh, ce que tu fais dénoncer au niveau de l'extérieur tu bitim réew ko toog ci kër gi réew mi di di xéxal deug wala xéxal démocratie. donc nañ dellusiwaat suñu xel état bi nañ liggéey buñ bëggoon arrêté tout ce qui euh, yoonu Espagne bi gaal yi dem wallahi doyu leen benn xëy je pense que dañoo ànd ci dem bi ngoone yi dem parce que li toll suñ côte bi ngandewul ngande goo xam ne gaal yi fiy jóge ak ni gaal yi toll mën nañoo mën a ñàkk vigilance ba gaal yi rëcc li dem ba Espagne donc gars yi dañ jëla suñ xel ci suñ borom te xam ne nguur day jeex luñ la dénk dañ la ko laaj ëllëg noo ko yore woon yéen ñu yor wàll woowu def leen seen liggéey ni mu ba mu mat bu fekkee sax day jar ngeen tëj ko di napp dootu am duñ lekk te duñ defati dara ngeen def ko moo gën gone yi dem ci àll bi di dee on a besoin de notre jeunesse. voilà encore une fois di jàll à toute sa famille Papito Kara di ko ñaanal suñu borom yërëm ko xaare ko aljanna te di mastaw encore une fois tous les particules de ce pays wasalaam.